yi nga xam ne daan na koy santaane ci lu jëm ci wàllum lislaam rawatina lu jëm ci wàllum jigéen ñi nga xam ne nee nañu leen amu leen sañ-sañ nuyu góor ak lislaam li nga xam ne wax na ko ci julli maanaam góor jigéen nekk ci ginnaawam ak lu jëm ci wàllum jigéen bu siddul bañ a dugg ci juma yi loolee lépp bokk na ci li nga xam ne pab Amadou Sarr daan na koy ŋàññe ŋàññi na tamit ni nga xam ne moom la ñuy miraase ci lislaam yéen a kaay gi nee na nag lii moo tax njiitu réew mi di Macky Sall jël ab décret ni ki daal di koy dàq yéen gi di Walf Fadjri nee na enfin une sanction yéen kaay gi di duñu xibaar naan ñu Pape Amadou Sarr mi nga xam ne moom la ñu dénk dara moom dafa agressé ñi nga xam ne ñooy julit yi Pape Amadou Sarr dafa agressé julit yi ndax nag moom bu passé sax giraawaali gi nga xam ne wax na ko ndax moom financement yii nga xam ne moom lañ ko def loo bëri na ñoo xamante ni am nañu si xel mu tey ci financement yi ndax amul benn impact si ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi waaye tamit amul benn impact si ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi te moo ne nag xaalis bu bare baree bare la ñu ko jox ndax 30 milliards la ko jox ak li nga xam ne mooy partenaires yi yéen kaay gi di Direct News moom sax gis mooy est-ce que dàq googu xam ne lu yeex a kaay kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall njiitul Union africaine ni ki démb wax na ak ki nga xam ne mooy Poutine njiitu réewum Russie ci guerre bi nga xam ne moo am ca Ukraine yéen a kaay gi ne na li nga xam ne daal Macky Sall wax na ko ko mooy lu jëm ci wàllum jàmm jee waaye nag Poutine daan na koy wax ne ko service militaire russe danañu def seen kem kàttan ngir nag jëlee mbooleem ñi nga xam ne ay étranger lañu ñu jëlee leen fi nga xam ne mooy Ukraine maanaam nag te dara du leen jotaay yéen a kaay gi di source bàyyi mbir moomee nag wax ci entrepreneur bii nga xam ne mooy Mbaye Faye Mbaye Faye mii nga xam ne moo gañe woon marché bi nga xam ne jëm na ci defar nag fi inondé fi am ndox fi mbënd mi am ca Kër Masar ba nga xam ne moom lañ ko joxoon bu nawet bi ñëwee moom maanaam bu tawee bu Kër Masar amee ndoxu mbënd ma bu fa amaatee bu mu bett kenn ndax Mbaye Faye mii nga xam ne moom lañ jox wàllu woowu ab entreprise moo ko gañe ba léegi liggéey ya la te app bañ ko joxoon jeex na yéen a kaay gi di ak réew mi quotidien ñu koy fekk fa maître Abdoulaye Tina moom nag daat nay woote li nga xam ne moo jëm jëm ci wàllum résistance ndax nee na élection nga xam ne dañoo bëgg indi parrainage loolee jaaduwul rafetu la te ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO ñoom dañoo waxoon ne maanaam parrainage bi nañu ko supprimer ndax nag xam ngeen ne état dañu koo yóbbu ca kanamu CEDEAO ña ñoom maître Abdoulaye Tine dañoo amoon dëgg ci kanam état bu Sénégal CEDEAO nañu supprimer li nga xam ne mooy parrainage bi loolee nga xam ne nag ab dogal la maître a a yaakaar naan ñu Macky Sall li ko arrangé ak li ko neex moom lay jële ci dogal yi nga xam ne CEDEAO moo ngi koy wax ndax nag CEDEAO bi mu waxee ne nañu sanctionné Mali Macky Sall daf ci ànd waaw CEDEAO bi mu waxee ne daal Mali mii war nañ koo sanctionné Macky Sall dafa tàccu ne ànd naa ci waa lan moo tax nag CEDEAO googee wax ne nañu supprimer parrainage Macky Sall na non non yéen kaay gi du source xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas lu jëm ci wàllum parrainage bi jur na coow lu rëy ndax na ci loo xamante ni maanaam gars yi comprendre ko waaye moo tax direction générale des élections dina amal nag ay réunion dina réunion ak ñi nga xam ne maanaam ñooy waa société civile bi jàpp nab réunion ak parti politique yi jàpp nab réunion nga xam ne ñooy waa sénat yéene kaay gi di fekk fa kuréel gi nga xam ne moo ëmb syndicat yi nekk ci wàllu wér gi yaram ñoo ngi dànkaafo fas yéene nañoo dem ci ab grève juróom benn jàpp fukki ñett yéene kaay gi di suddi ko di jen ñoo ngi yi nga xamante ni signé woon nañ ko yéene kaay gi di la sole ñu fekk fa Mamadou Talla mi nga xam ne moom lañ dénk njàng mu diggu doomu mi nee na nag ñoom amuñu benn xel ñaar ci accord yi nga xam ne maanaam signé nañu ko yéen i kaay gi nee na jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñëpp danañu dem ci ab i kaay gi de la Soleil nee na bi njënd njaayum gerte mi maanaam 60 la woon léegi nag yóbbu nañ ko ba 70 milliards yéen i kaay gi wax ci Ligue des champions Real Madrid ni ki démb daan nay toroxal ñi nga xam ne ñooy waa Paris Saint-Germain si biir stade Santiago